الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد mbokk suñu xutba tey ñi ngi jiital sant suñu boroom mi ñu wërsëgal ñu fekke wéeru koor wërsëgal ñu ñu bokk ci ñiy woor bokk na itamit lu julit war a xam te sun maam yi daan ko jàng ci seen téere ba ñuy jëkk a jàng ci Sénégal muy téere laxdari mu ne wala yaxillu lahu an yafaala fi'lan xatta ya'lama xukma allahi fiihi du dagan ci julit mu jóg di def dara lu dul mu xam lan la yàlla atte ci loolu ngalla waay bul ne jóg naa fekk samay waajur di woor kon maa ngi nekk di woor waaye fexeel xam lan mooy koor lan moo koy defar lan moo koy yàq lan mooy lan ca la nga xam ne dañ ko sib incha allah loolu mooy nar a nekk sunu xutba tey lu jiitu yow doomu julit xamal ni koor daa bokk ci ponki lislaam yi nga xam ni benn julit amul droit réere ko masalan julit mën na nekk julit te xamul ne kat wat sikkim moom daa xaraam masalan waaye amul benn julit boo xam ne am na droit naan man xaw ma ne koor ci lislaam la bokk sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam nañu diine jii de yàlla nga ko tabax ci kaw juróomi pii ba ca jëkk mooy seede ba ngay seede yàlla kenn la muhammad yenente yàlla la ñaareel ba mooy julli juróom ya ngay taxawal ñetteel ba mooy aj makka mooy zakat ba ngay joxe ñeenteel ba mooy aj makka juróomeel ba mooy la nga xam ne mooy weeru koor ki taxawal lii diineem taxaw na ki màbb benn ponk ci lii màbb ne diineem ay yow mbokk julit xamal ne koor bu dul woon ak farata bi ko yàlla farataal ci ñun da ngay gis ne am na ay ponk yu bari yoo xam ne aju na ci lu ñu sopp julit war a góorgóorlu jéem koo xam bokk na ci loolu sunu borom jalla wa ala mu ne weeru koor day mi ngi nii maa ko farataal ci yéen ngiree ngeen am ak ragal yàlla buñ la laajoon lan mooy yóbbal bi gën a wóor ci àdduna lan mooy yóbbal bi gën a mattale ci àdduna yow ndawul julit bul jàpp ne ay diplôme la bul jàpp ne entraîné wu ba pesé cent cinquante kilos la bul jàpp ne réussir sur le plan politique la waaye xamal ne la gën a wóor lu ñu yóbbaloo suñu borom mu ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa na ngeen yóbbalu ci xam ne li gën li ngeen di yóbbaloo ci àdduna moom mooy ragal yàlla wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu la yaxtasib ku ragal yàlla xat-xat yoo jaar yàlla génne la ca dana la wërsëgal foo ko foogewul woon koor googu awalan lañ ca yàlla jëkk a dig mooy ragal yàlla bi lay xettili àdduna ak alaxira boo wooree na nga war a wooree yàlla may la ko yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko ma ko gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaama day jëf yépp sunu borom dana sant malaaka yi ñu fay ko boo jëfee ñu fay la fukki ca la nga jëfoon mën naa dem ba juróom-ñaar téeméer waaye ba mu des koor koor suñu borom mu ne maa koy fayal sama bopp loolu it jaam ya ko doon woor benn bis mën ngeen a bokk woor te seen pay du yem ndax na ngeen woore ca la yàlla ne maa koy fayal sama bopp kon fay ba moom yàlla rek xam lu muy toll bal yenn borom xam-xam yi yégg nañ ca sax ne ak loo mënoon a tooñ da ngay gis ne say tuyaa ba dañuy jël di ko faye gaaya tuyaay bay koor moom du ca bokk ndax suñu borom mu ne maa ko moom ca maa koy fayal sama bopp su ko defee yonent bi alayhi salaam ne koor day benn tatala bu doomu aadama di dugg bi nga mel ne rek koo xam ne dafa doon dem guerre am la nga xam ne mooy mbubb koŋ muy li ñuy tuddee gilet boo xam ne moo koy garantir mu ne koor it noonu lay doxe sa diggante ak yu xaraam yi yàlla subhanahu wa taala bañ mu ne kon kenn ci yéen bu wooree ba mu nekk di wax wax yu jëm ci wàllu sëy ba mu nekk di yuuxu ci ay histoire bu dee am na ko jóge fële daggal ko saaga am na ko jóge fële xas ko ne ko ne man day dama woor même bu ñëwaatee ne ko wax man day dama woor yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne aji koor ji bu demee ba ngoon noonu gémmiñam di changé xet bis bu demee yowm alqiyama lay génne ci moom mooy gën a ne xetu misk ndax koor ga nga xam ne nii da koo muñoon mu ne waa ji woor ba kooram jeex dana kontaan ci bis bi nga xamee ne nii moom lay dog waaye it bis bu dajeeg boroomam dana kontaan ci koor ga nga xamee ne nii doon na ko koor sunu yeneen bi salallahu alayhi wa sallam teg ci ne na ngeen xam ne benn yowmal qiyaama day suñu borom yàlla dana ubbi buntu àjjana yi waaye am na ci benn bunt bu ñuy tudd rayaan nee na dañuy woo ñi nga xam ne ñoo doon woor ñoom dong ñooy ña nga xam ne ñoo cay dugge suñu duggee ñu tëj ko keneen ku musul woor du dugge ci bunt boobee loolee mbokk day doon ngëneel boo xam ni ngëneel bu rëy la bu ramadan di ñu xaar yowmal qiyaama yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ki nga xam ne day dafa woor te bi muy woor mi ngi ànd ak gëm ne lii yàlla ko faratal ci man ànd ak gëm ne farata la ci kaw julit yépp te bokk na ci it nga gëm ne ñépp la war heure boo wooree ba jàpp ne waa kër ma sàmbakat ñoom dañ leen a teggil koor yàq wóorul yéen a yem képp bal waa ja nga xam ne wóorul ca gëm ne ñépp ñoo gën ñoo war a woor ñoom ñoo la gën ñoo gën waaja woor ba pare jàpp ne waa kër ma sàmba ñoom dañ leen a teggil ak koor kon da ngay gëm ne koor farata la gannaaw ba nag nga def ko fekk yaa ngi yaakaar fay ca yàlla mu ne lii day bu amee yàlla dana la baal mboole mi bakkaar ya nga xam ne jiitaloon nga ko ca loolu mbokk muy mbir boo xam ne ay mbir bu rëyu rëy la gis nañu sunu société nationale yi ngiree mbaal doomu aadama yi dañ naan waaw fay leen seeni facture masalan ci lu mel ne orange money am nga chance sa dernière facture bi nga fay ñu delloo la ko waaye cey suñ caam tey buñ la ko woon weeru koor bi day boo ko defee ni yàlla bëggee mboolem facture Senelec ya sona ak sonatel yaag ndox ya lépp dañ ko dajale delloo la ko yaakaar naa bu wóoree dana tëju néegam di jàng alquran ba bàjjante bi di so loolu mbokk yi tamit la ñu suñu borom diglu gën loolu ca mooy bakkaar yi nga jiitaloon yépp yàlla subhanahu wa taala dana la ko baal ngir weeru koor yowmal qiyaama suñu borom bu ñuy atte boo xoolee doo gis ndey doo gis bàyyi doo gis sëriñ avocat amul foofu xarit buy taxaw sa yet amul foofu waaye yonent bi alayhi salaam nee na yàlla buy atte ab jaamam weeru koor dana nekk jëmm ñëw taxaw na ko ay yàlla baal sa jaam bi man day maa doxoon digganteem ak bànneexu bëccëgam ca lekk ga ak naan ak ànd ak soxnaam wala borom këram alquran jóge fële daa dina ay yàlla baal sa jaam bi man day maa teewoon daawul nelaw guddi jóg taxaw di naafila loole ca jàkka jala wala ca kër ga la su ko defee suñu borom nangul leen seen ramm seen ramm ñu daal di lay baal nga dem aljanna yàlla na yàlla defal ñu ko mbokk julit loolu it mooy tax ba julit war naa xam lan mooy ponki koor mbokk ponki koor ñeent la ba ca jiitu mooy ngi yéene na da ngay woor bokk na lu ci borom xam-xam yi wax mooy bu dee weeru koor feeñ na nga yéene na weer bi yépp danaa ko woor yéene boobu dana doy lu dul ni feebar dagg na ko wala tukki dagg na ko nga yéene waat na suba danaa jëlaat koor gi ay dina reprendre amma bépp koor boo xam ne yéene lalu ko loolee kenn du ko nangu masalan tey ji mënoon ngaa ñëw julli si fajar ci jàkka ji ñu ne ah weer yi feeñ biig te yow amoo woon xabaar bi avant fajar su boobaa da nga woor naam bis bi moom yàlla da nga la bindal tuyaaba da nga ko woor waaye nag fokk nga woor bis boo koy fayee ñaareelu ponk bi mooy nga jàpp mbokk koor du lu ñuy def koor lu ñuy bàyyi la mooy nga bàyyi lekk ak naan ak lu mel ne lekk ak naan waaye bàyyi lépp loo xame ne nii moo aju ci wàllu sëy nga bàyyi ko gannaaw bi nga respecté heure bi heure boobu mooy fi fajar di jotee ba baar bi jant bi di so ñett yooyu mbokk moom mooy ponki koor yéene ba jàpp ba ak waxtu wa nga xam ne moom ngay respecté amma ka yàlla farataal ci moom koor mooy julit bi nga xam ne majeur na bu dee xale bee war nañ ko cee tàggat war nañ ko cee encouragé di ko ci neexal war nañ ko ci yit di ko xupp ci mu bañ di dog ba ci du weeru koor avant muy majeur avant bu bu xesee ba sa doom majeur nag xamal ne la la war ci koor gi moo la ci war buy jar xeex ak moom xeexal ak moom buy jar looy jëflanteeg moom jëflanteeg moom bu ko seetaan mukk mu nekk ci kër gi weeru koor di attaayaaka def la ko neex ca fekk majeur na gannaaw ba fokk nga ànd ak sa xel yàlla tegu ko dafi gannaaw ba it fokk nga man koo woor ay amoo ay ngant ca ngant yooyu bokk na ca la nga xamee ne mooy ay feebar waa ji nekk ci tukki may nañ ko mu dog ay kooram ba baa yeneen bis naka noonu itamit mbokk bépp jigéen boo xam ne règle de la dab ku mel noonu wurula woor bépp jigéen boo xam ne dafa am doom yor nekk dereti wasin ku mel noonu mbokk na xam ne moom tamit warul nekk di woor mbokk koor googee da ngay gis am na ay ngëneel yu bari yu ci nekk ngëneel goo xam ne ci sa ruux lay dellu bokk na ci loolee ragal yàlla gi mu lay may loolu mooy secret bi gën a rëy ci koor moo dina man kat sama soxna mi ngi nii même bu doon dama tukki woon léegi gën nañoo gisee ak lu mu mën a doon ama droit ànd ak moom ci bëccëgu weeru koor kon kay na ma amee kattan mën a téye sama bopp ba lii ma daganoon ma téye ci sama bopp kee nga xam ne daganu daganu ma ca soxna ya danaa ko mën a bàyyi liggéeyi naa ba wàcc frigo baa ngi nii ndox maa ngi sedd baa ngi nii li ma mën a lekk lépp mi ngi nii waaye téye naa sam bopp ba lekkuma ko ca maa ko moom ca dagan na heure boo xamee ne koor gi passé na la yàlla xaraamaloon ci yow ci lépp loo xam ne daganu lu ñu war a lekk da nga war a am kattan ci mën loolu bokk na ci mbokku koor googi lim lay may nga mën a muñ mën a muñ li nga xam ne mooy xiif mën a muñ la nga xam ne sëy bu xaraam la waaye mën a maîtriser sa bopp ca loolu mooy li gën a màgg ci li doomu aadama di am ci muñ ba demoon ci ñi nga xam ne dañuy jàngale ay arts martiaux nga doon ay judoka lañu wala ay karateka bokk na luñ lay wax mooy heure boo xamee ni nii yow day sa noon duma nga ko ñu ne yow day am nga doole ndax duma nga sa noon waaye heure boo xam ne not nga sa bakkan ñu ne yow day lépp luy kattan am nga ko ca ki gën a nekk jàmbaar mooy ki not bakkanam ca moom la yonent bi alayhi salaam daan wax naan laysa shadidu bi suraa inama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab jàmbaar dëgg du ku la tooñ nga dóor mu daanu waaye jàmbaar mooy ki nga xam ne même bu meree moom bakkanam ca yaa ngi dégg sànq sunu borom jalla wa ala di wax wala yonent bi alayhi salatu wasalaam di wax naan kenn ci yéen bu wooree même bu doon benn waaye daa jóge fële boo xam ne su ko neexoon dóor ba mu bëgg a dee waaye kooku ñëw ne ko ah saaga ko na ko wax rek dama woor na téye boppam loolee kon mbokk koor da lay jàngal loolu bokk na it lu ñu koor di jàngal mbokk defar suñuy xol ak suñuy xel doomu aadama bu nuuree ci lekk ak naan bu ëpp daal di nuur ca la nga xam ne mooy sëy yu dul jeex loolee day am jeexital ci xolam loolu day am jeexital ci xelam loolee kon ku ne war cee bàyyi xel gannaaw ba koor ngi ni mbokk doon benn tata bu rëy contre cheytaan cheytaane bokk na natt bu ñu yàlla nattoo yonent bi alayhi salaam nee ne ni suñu deret di dawee suñu biir yaram noonu la cheytaane mën a dugg ci biir yaramu doomu aadama ci loo xamee ni nii yonent bee ko wax dañ koy gëm comme bu la courant ma son mën a traverser sa yaram yépp loolu nag nga xam ne mooy koor gi ngay koor dafay tëj la nga xam ne moom mooy woyefal foofu deret bi di jaar ba day tax ba yow cheytaane du mën a am ci yow la nga xam ne moom mooy pexe amma mbokk julit koor la nga xam ne dana ko jëriñ société bi bokk na ko dana ko indil la nga xam ne mooy organisation julit ñi xëy bokk heure yu ñuy lekk bokk heure yu ñuy naan ca mbokk képp koo bokkal mbir rek da ngay gis ne cofeel day am ci yow ci loolu ba nga xamee ne tey jii boo amoon ganweeru koor doo xalaat mukk ne naa dem lu ma koy toggal wala ban boisson laa koy jëndal da ngay daal di noppalu ndax xam nga ne daa woor nga woor mu jeex loolee mi ngi noonu bokk na ci it la koor bi indi mooy yemoo ci diggante doomu aadama yi mbokk da ngay gis bëccëg gi nii wallahi sama benn mbokk mi ngi may nettali faatuna sax rahimahullah mi ngi doon nekk liggéey ci benn service fii ci Dakar nee na ma man dama daan yàkkamte weeru koor ma ne ko lu tax mu ne ndax société bii bi ñu nekk bu mi di jotee gaa yépp wàcc dem restaurant añi ca man salaire bi may am munu ma cee jënd añ am naa bu weeru koor jotee ñun ñëpp a yem ñooy xëyandoo wàccandoo gis ngeen loolee mbokk kon ñu gis ni muy mën a indee ak ah yemoo ci diggante doomu aadama yi noonu it lay mën a indee la nga xam ne mbokk mooy yërmande yow mi nga xam ne da ngaa woomle foo ndékki jotee nga ndékki añ jot nga añ yow nga toog un mois boo xam ne heure añ jot ne yaa ngi xiif te munoo lekk war ngaa xalaat ne man day munumaa lekk parce que dañ ma koo araamal waaye am naa lu ma lekk waaye nga jàpp ne am na koo xam ne xiif ne na yow ca moom amul lu mu lekk su boobaa kon dana la jàngal ngalawaay ci biir koor gi ak ci dul koor gi yépp nga góor góorlu jéem a dimbali fuqara yooyu loolu moo tax mu bokk ci ay ngëneel yu màgg ci weeru koor mooy jël sa alal joxe ñu togg ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw bu ñu waree ba ngoon am loo xam ne luñ ko cay doge ñi ngi profité ci mbokk yi nga xam ne ñi ngi doon jël seen alal di ko indi fii bi koor gi commencé ñi ngi fii indi ay ndogu ci jàkka ji te it ñi ngi am xel mu dal insha allah daañ ko fi indi ba baa koor gi di jeex ndogu yoo xam ne nii ay téeméeri nit ñoo ci lekk loolee mbokk ngëneel la ña koy def fii ña koy def feneen yépp yal na yàlla nangul leen te mbokk loolu mooy yëg-yëgu weeru koor mooy nga am yërmaane ci la nga xam ne mooy sa mbokk julit waaye mbokkoo tamit nga doon koo xam ne ngay sant sa borom yàlla te moo di ne man day yàlla boole ne ma ci maag sama njaboot ñoo xam ne xamuñu xiif xamuñu mar te wallahi boo demoon ca la nga xamee ne nii ñooy toppatoo wàllu xiifu adduna bi da ngay gis ne dañ naan la presque lu jege ay genn wàllu milliard ci doomu aadama bi presque amuñu loo xam ne nii lu leen doy añ ak reer kon bu la ci yàlla génne yàgg sa njaboot nga la waay nga war a sant ci loolu amma koor day ñëw rek fàttali la yàgg sa njaboot la nga xam ne mooy xiif te wallahi xool leen seen njaboot xëy na yéen bu ngeen ko miine it mais da ngay gis xale yu doog dugg ci koor ña ngay lemu bu cinq heures duñ mën a waxati xamal ne nag xale yu fuqara yu ñoom at bi yépp ñu ngi sax ci loolu mbokk la nga xamee ni ni mooy koor dafay aar société bi da ngay gis ne maa ngi fàttaliku suñu mbokku imam laam yàlla yàlla dolli ko wér mu ne benn officier de police da koy wax ñun waa police dañuy yàkkamti koor ndax bu koor jotee buñ daan def dix intervention buñ def ñaar sax wala ñett kon koor day indi jàmm ci dëkk bi doomu aadama yi dal doomu aadama yi jokkoo mbokk buñ dellu woon ci wàllu santé noonu lay laabale sa mbaq noonu lay laabale say butit noonu lay wooyee fale la nga xam ne moo lay sonal ci ay cholestérol ak yeneen ak yeneen ba nga xamee ne bokk na ci li ñu naan li tiim mboolemu garab mooy doomu aadama di régime contrôlé la nga xam ne mooy lekkam aka bari kuy jàmbat feebaru biir bu koor gi ñëwee mu woyof ci moom ak yu demee noonu waaye mbokk da ngay gis ne koor googu it suñu borom yàlla da ko utal ay mbir yoo xam ne dañu war a góorgóorlu bàyyi ko mu doon loo xam ne yu sunu borom xaraamal ca mooy lan mooy yem xaraamaloon ci bët ci feneen fudul koor xamal ne bu dee kooro nag day gën a xaraam ndax non seulement day nekk bakkaar comme avant koor waaye day tax yàlla du soxla sa koor yonent bi alayhi salaam moo ne wa man lam yada qawla zuur wal amala bihi wal jahl fa laysa lillahi xaajatan an yadaa taamuhu wa sharaaba rawahu lbuxaari yonent bi alayhi salaam nee na ku bàyyiwul di wax lu xaraam ca fen ya ak jëw ya ak rambaaj ya di xool lu xaraam ca film yu bon ya di déglu lu xaraam ci musique ya ak théâtre ya xamal na yow yàlla soxlawul sa koor ay yow mbokk julit koor googu taaral ko ci mbir yi ñu sopp bari lal di jàng alquran foo mën a toll demal ci jataay ya nga xam ne dañ ko fay leerale alhamdulillah yàlla bokk boole na ci sunu jàkka ji gannaaw takkusaan bu nekk ba baa six heures demi ñi ngi fi nekk tiim téereb yàlla bi yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko gannaaw boo foo mën a toll bari lal zikrullah ca waañ wala ca usine ba la ca marché ba la ca sa kaw lan la bari lan loo ci génn ay sarax ca guddi ya ak bëccëg ya yonent bi salallahu alayhi wa sallam moo gënoon a tabe doomu aadama yépp waaye mooy ki nga xam ne tabeem nga daana yokku ca la nga xamee ni nii moom mooy weeru koor heure bu ñëwee mbokk koor googee bokk na luñ ci sopp mooy nga yeexal sab xëdd di jéem a arrêté ci loo xam ne nii diir la bu soriwul avant xëdd di di avant julli fajar di jot waaye it heure boo yégee ne jant bi sono nga dog te di peeg di moytu bari na ci lu bari ay rajo que télévision dañuy profité di noddu te fekk ne boo xoolee dëgg dëgg dëgg jant bi sowagul kon na nga gëstu ba xam exactement heure yi nga xam ne dañ koy dog nga di ci basé wu soo ci mënoon a dolli lu met deux minutes sax ba mu wóor na la jant bi sono moo gën nga wóor fukki waxtu ak juróom yàq ko ci ñetti minutes gannaaw boobu dee da ngay dog xamal ne tàndarma moo ca gën bu dee bu tooy ba moo gën bu amul nga jël bu wow ba soo amul nga jël ndox doonte ne it xamal ne mbokk julit nga lekkoon tàndarma naan lu woyof bàyyi ba julli timis doog a lekk loolu mooy li gën lu bari ci nit ñi da ngay gis seen dog rek ab reer la jël genn wàllu miche mburu da diw ko ba mu gauche ak droite daa di dog daa di lekk lépp daa di teel a chargé sa biir loolu baax baaxul sa estomac li gën mooy nga jël lu am sukkar tuuti jël tuuti rek ndox bàyyi noonu bu ko defee comme estomac bi bëccëg bi yépp jëlul dara loolee da koy jël préparé ko gannaaw ba nag boo jullee ba pare doo ko reer mbokk julit da ngay gis ne koor bari na ay ngëneel waaye bokk na ngëneel yi ci gën a màgg mooy bu guddi jotee nga dem taxaw di naay fi la soo ko defee ca jàkka ja mooy la gën comme na nga xamee ni nii noonu la ko sahabatul kiram doon defee gannaaw bi itamit xam leen ni bokk na la nga xam ne mooy yàqu koor googu mbokk julit mooy lépp loo xam ne nii dafa lekk lekk la wala naan la wala ab sëy la wala mënu yu boo xam ne yaa ko génne ci yaa ko tey ak noo ko mën a génne même bu doon da ngay jonjoog sa soxna ba mënu yu ba génn loolee dafa yàq la nga xam ne mooy koor gi amma bu dee da nga sëy ci bëccëgu weeru koor nag su boobaa def nga musiba bu toll ne bis boobu da nga ko fay waaye bu koor gi passé da nga tegale ñaari weer di ko woor heure boo ko dogee ci sa coobare da ngay reprendre at à zéro loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax am naa ki tëddoon gudd ki tëddoon bëccëgu weeru koor daa di gént man yuy génn ci moom ku mel noonu dara waru ko waa ji nga xam ne it dafa lekk wala mu naan wala mu sëy ca jamono boobu fàtte na complètement ne damaa woor ko mel noonu it da ngay gis ne dara waru ko ca la lañ gën a tànn ci waxi borom xam-xam bi amma mbokk julit bokk na ci it yow julit jigéen ni julit nga xam ne boo wooroon ba fii jant bi soo des une minute bu sa deretu règle ñëwee xamal ne koor googu yàqu na yàlla dana la fay pay bisu koor gi waaye fokk da nga ko fay lépp luy taxaw place lekk ak naa ñu day yàqu koor perfusion ya ak yu demee noonu mbokk li ab tënk la boo xam ne jàpp nañ ni képp koo xam ne nii bàyyi na ko xel jëfe ko yàlla subhanahu wa taala dana gërëm kooram ba fayal ko ko boppam yowm alqiyama yàlla na yàlla defal ñu ko yàlla na yàlla nangul ñu suñu koor dëppale ko kóorug yenente ba salallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla teggee ci sunu mbooli mi tiis fajal ñu ci mbooli mu jàngoro xettil ñu ci la nga xam ne moo ñuy jëriñu àdduna ak alaxira allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين